mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz jaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax waawaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kàttan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz Diaw moo ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. ñi euh, euh, defoon jëf jëwoon fële ca kawlax nee nañu jàpp nañ ci euh, dix-huit personnes loolu yi lañu wax am na nag daal ñu ci daw ñoo xam ni kenn ka dem na Mali kenn ka ma nga Gàmbi daal wax nañ loolu waaye nag police mi ngi ci ab enquête bu metti ak wër mu métti moo xam daal jàpp nañ ci pexe ñu nekk ñooñu balaa yàgg daa ñu leen teg loxo indiwaat leen. waaye jàpp nañ ci daal lu bari moom. Mm-hmm. waaw police de moom bu fekkee ni treize personnes lañ ci jàpp treize. ñoom seen liggéey la ñuy def te li ñu def noonu xaj na luwaa bi ab néew moom kenn waru koo sulli. Mm-hmm. bu ñu ko sullee ñoom am nañ droit taxaw laaj ñan ñoo sulli néew bi ak lu tax ñu sulli ko. Mm-hmm. ndax yaakaar naa enquête yi ñu def def nañ ko fi biñ euh, sullee néew bi kii sëñ Moustapha Sy. magum taalibe moom ñu sulli woon ci kër sëñ Moustapha Sy boobu noonu. amoon na enquête. yaakaar naa amoon na enquête de. topp rajo yi daal rajo yi daal kenn waxu. waaw loo jógee Kaolack ba dellu Tiwaawan. Tiwaawan benn la de Kaolack ak Tiwaawan <laughs> kii kii diine rek la de dëkki diine. ah Tiwaawan dafa am am na enquête. Ah, jël nañ ko daal ni yóbbu hôpital denc di ni ñëwaat suulaat bàyyi mu sedd. ñoo ko sulli woon nag. ah ña ko sulli woon kenn waxu leen dara. ana ñu ñooñu. ñu ngi si dëkk bi ñu ngi leen di jàpp ñu leen di jàpp. kenn waxu si même rajo yi yëpp. maam dañ noo wax naan maam liñ doon joxe commune kii information bi moom si sulli gi lañ àndoon. Ah, maam si sulli gi ndax dina jàpp naa ay terrain jàmbur moom ku fa suul nit affaire yooyu noonu xam nga saar détail boobu la woon. te néew moom boo ko xasee sulli rek du yoon. ak lu mu a xew waroo sulli néew ko yóbbu ñëwaat suulaat ko même fi nga ko sulli loo si doon sulli kon. foofu mën ngaa def constat bi ndax war nañ ko fay suul war nañu ko fay suul. Ah, constat yóbbu bi mais dañ koo sulli kon booy lii ñu def njëkke wuñ ko fi ah, waaye nag rafetlu wuñ ko njëkke wuñ li néew kon rajo yeet nañ si indiwaale lële di ko leeralaale ndax lee boobu rajo yi dañoo bàyyi mu sedd hmm. rajo yëpp dañoo ni ci yàlla di seetaan affaire yi sëñ mu Fall jàpp boppam ña ko sutli woon suulaat ko jàpp ñu si kenn dégguma ko bokk alaaji waaw mi ngi noonu euh, def naa suma ma juumul bàyyi kaatim la euh, may lu ci doy waar nag mooy bañ ko sullee dafa yàgg ñu sulli ko te dara yàqul ci hmm. koor ba loolu itamit dafa am lu muy signifié waaw ndax tabarkàlla alaaji noo gisee eh, xar kii bi eh, mbiru la xewoon ca fële jàpp na ci treize yoo xam ne am na ci ñaar ñu daw ñoo initié woon mbir mi ñoo doon sulli kenn ka dem na Mali kenn ka dem na fële nga xam ne mooy Gambie. waaw mais defe naa bon kii bi ñu bi nga njëkk a ñëw mooy eh, bi Assane doon wax defe naa dafa am ñu doon tuuma tuuma amoon na. mbiru terrain la woon kii quoi waaw mais dañu pour sulli baag yëpp dañu bëggoon wax ne ree dem gi. Euh, defe naa waxoon nañ ñi kii waaye defe naa bi ñu xoolee xam nañ ñi lépp naturel la donc amut lenn donc mbir mi noonu la mujjee moo tax kenn jàpput kenn waaw waaw mais terrain ba mais après xam nga su liggéey yooyu yëpp defaat na est-ce que defuñu ay autopsie xoolaatuñu ak affaire yooyu doon xoolaat am na ñu doon xool mais bi ñu xoolee tamit suñu borom def na ci lépp jàmm daal def na mm-hmm. voilà xam nga gis nga lii ñii def mm. man ñi def lii man pour man dañ ñoo tooñ. waa parce que ñi ngi yëkkati coowal góor jigéen. <laughs> di di ci wax mel ni lii ak lii c'est yii yëpp tooñ ñi ngi tooñ quoi waa ji suñu borom yóbbu na ko nañ ko woon bàyyi mu jeex kenn du wax ay wax gi mais fi loolu débat bi journal yaa ngi ci mbirum góor jigéen ñi ngi kii ak ñi ngi lii te coowal góor jigéen dafa arrangé góor jigéen ñi. Mm-hmm. parce que ñi ngi ci kaw. léegi di mettit lu ah te yooyu yëpp li ko indi mm. mooy xam nga nit ki buñ demee ba sulli ko nit ñi fi mu toll nii li tax nit ñi am lu leen naqar yi mm. ñu ndax ay góor jigéen mais jëmmi nit ci boppam la sunu borom wormaal mm. nit ci boppam mooy ku màgg am na ñoo xamante ni bi loolu sax moom mooy tax ñu dugg ci xeex bi parce que nit ku ñu suul ba pare nga sulli ko di ko dawantoog moom bu boobaa gisuñu ne kii ñaate mais kii moom ku mënatul def dara la. Mm-hmm. koo xam ne kii mi ngi ci loxo yi ki ko sàkkoon. Mm-hmm. léegi nga dem lu xar di ko fa génne ko mënoo cee am lu la naqari léegi ñu naan daw ngaak def nga niiw ak ñii dem nañ fii ñii dem nañ fi jëf ji moo wartoon am quoi. Mm-hmm. comprendre nga. donc loolu mooy li nga xamante ne bi mooy mbir mi te fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla. man coowal góor jigéen moom sawaruma ci quoi. parce daal ah non mbirum góor jigéen moom wax dëgg sawaruma ci seen mbir moo tax daal coow li li ko indiwaat nii mu jóg ci kaw. Hmm. ñi def loolu ñooñ tooñ bañ ko suulee. bañ demee ba nga xam ne suul nañ ko. Hmm. donc mënoon nañu loolu waaye laa bu ñu doon naqarlu ñu fexe sax autorités yi ñoom ci seen jëmmi bopp ñëw def kii parce que bu ëllëgee ñu def nga def lu ni mel mais pas que góor jigéen yi ci seen jëmmi bopp euh, nga dem. def yoo xamante ne bi léegi fi mu toll nii am na ñoo xam ne bii ay soutien de famille la ñu woon ak yooyu mais ñi ngi ci fitna te li ñu def di rek moom moo leen ko indil jaru ko. d'accord quand même. par exemple nañuy xeex boo looy xeex day ko xeexee xel. d'accord waaw.